waaw tey euh, xalif bi dalal nañu dañoo ñëwoon pour euh, déjà wax ak moom expliquer ko situation wu bi fii si Touba xam ngeen euh, Touba dëkk bu mag la dëkk bu am kilifa la dëkk boo xamante ne lépp lu fi am rek doo bàyyi kilifa gi mu yëge ko si rajo da nga war a donc jël sa tànk ñëw expliquer ko yëpp si détails yi mën na am détails yoo xamante ne ñun rek ñoo ko mën a expliquer moo tax ñu ñëw seet si ko waxtaan nañu moom ministre de l'intérieur la àndaloon mais mu comprendre ñu bu baax a baax euh, xam effectivement situation bi mais aussi ñu euh, wax ne suñu cër mooy que ñu tàllal ko loxo mu ñaanal ñu mais non seulement ñu tàllal ko loxo mu ñaanal mais ñu fexe ba jël taataan ay conseil am parce que moom moo ñu war a xam dëkk bi ba lépp lu ñuy def rek si wàllu santé si wàllu prévention si wàllu information ñu mën a sukkandiku aussi ci conseil yooyu bon nag en résumé dañoo ñëw pour rendre compte situation épidémiologique bi ki xamante ne moom moom dëkk bi mais aussi taataan ñaan ak ay conseil pour xool naka la ñuy ànde pour euh, donc fexe ba euh, vraiment épidémie bi ñu mën ko stoppé fii ci Touba. waaw xam nga euh, loolu moom wax naa leen sànq ne def nañ. ak moom euh, vraiment un de d'horizon pour expliquer nu mu demee euh, am na benn euh, comité boo xamante ne ñu koy woowee comité national de gestion des épidémies ñoom def nañ seen rapport bu ñu jëbbal gouvernement bi danañu xool nag vraiment loolu lan moo si suñu cër ak nag la ñuy taxawee mais am na loo xamante ne moom yaakaar naa ne donc il faut pas que ñu teel si sore nañoo bàyyi rek ba li ñu war a def ñu def ko si du am fii du place am parce que dañoo song mbiru épidémie boo xamante ne euh, feebar bu bees la xamaguñu traitement bi prise en charge ba nekk fan fexe nañ ba tey fii si Daaru Marnaan képp koo xamante ne donc euh, euh, détecté nañ la nga positif rek teg nañ fay jumtukaay ak ay spécialistes yoo xamante dañ lay jël en charge ñu lay jëlee en charge fan noonu lay jëlee en charge en fii donc yaakaar naa ne donc problème boobu vraiment c'est pas un problème qui se fi mu toll nii. li gën a am solo mooy ñu góorgóorlu ci prévention bi li gën a am solo mooy ñu góorgóorlu pour képp koo xamante ne am na njort rek ñu mën la war la mën a mettre en quarantaine nga bañ a génn fa nga nekk pour nga bañ a wàll keneen fexe ba képp ku ñu seetlu ba ne am na ñu mën la jël yóbbu la traité la fexe ba vraiment donc population yi comprendre que ne am na acte yoo xamante ne dañ ko war a donc bàyyi mooy nuyoo bu bari bi saafantoo bu bari bi et cetera parce que dañoo nekk ci période d'épidémie ku nekk rek danga nga war a aar sa bopp aar sa moroom aar sa njaboot loolu moo ëpp solo. waaw xam nga euh, loolu moom yaakaar naa ne euh, mbiru mbiru mbiru société la ak euh, mbiru population la très souvent bu mbir amee dangay wax ne ça n'arrive qu'aux autres da nga naan ñeneen ñi rek la mën a dal yow moom concerné wu la bés bu la dalee da ngay xam ne mbir mi am na réellement bon nag li may wax askan bi rek mooy que ne donc feebar bu fi nekk la am bu baax a baax. actuellement am na fukki nit ak ñeent yoo xamante ne juróom-ñeent pardon yoo xam ñoo ngi leen di traité pour que donc ñu wér am na si koo xamante ne seet nañ ko presque wér na fekk suba nañ def dernier contrôle ñu génne ko mais feebar bu fi nekk la boo xamante ne vraiment donc dañ si war a taxaw waruñ ko caaxaane li gën a doog doy waar si feebar bi mooy wallaate bi dafa gaaw parce que bu ngeen seetloo depuis que donc euh, suñu mbokk boobu jógee Italie yegg si fii ba léegi ay fan la ñetti fan la mat mais bu ngeen seetloo wàll na déjà fukki nit ak juróom-benn ak moom muy fukki nit ak juróom-ñaar loolu mooy wane ne bu ko ñu bëri amee mais bon wàllaate bi dana donc law dëkk bi boo xamante ne law bu métti lay doon. moo tax donc nit ñi war leen wax la ne vraiment lu am la lu ñu war a taxaw la lu ñu war a lëkkaloo la lu ñu war a booloo la pour donc euh, jéem ko xeex.